ba ay mercredi sax ñu ngi am ay lamb jour ouvrable yi loolu signe de signe d' avancement de la lutte la donc euh, di sensibiliser davantage supporters yi fans club yi ñu bàyyi seen scènes de violence bu ñu daanee seen i mbër wala bu seen mbër daanee ñi maîtriser seen euphorie jarul ñuy yàq ay làmb ay seize ay yu mel noonu loolu rek mooy regret bi tant que ñu ngi discipliné yo sponsors yi dinañ dugg te dinañ bëri ay deux trois cinq combats si saison pourquoi pas waaye. mais des Euh, ku ci mel ni bébé def na ko ànd ak ñoo xamante ni dañuy nekk genre sécurité ñu solal nañ ay blouse yu mel noonu est que buñ koy faral ay supporters buñ koy faral di def est que du du gën a euh, rafetal li nga xamante ni mooy làmb mais loolu initiative bu rafet la gisuma ko woon donc bébé jën ñu ngi koy tirer le chapeau loolu la ñuy naan les stagiaires stagiaires CNG si boppam waroon na ko am parmi le lutteurs ñi nga xamante ni def nañ formation avec Bamba Bamba Bamba Mboup Bamba Mboup donc bu mënul loolu bu mënul nekk ñi uti ay stagiaires dans chaque écurie CNG réclamé leen un certain nombre de de lutteurs ñi nga xamante ni amuñu combat ñu defal leen ay stagiaires chaque journée de concert avec les promoteur ñu xool nag naka lañ leen di neexalee pour seen transport. parce que mbër yi xamante nañu ak supporters yi mun nañ leen calmer mun nañ leen sensibiliser davantage parce que lii ñaaw na quoi nga ñëw seetaan làmb muy am ay scènes de violence quand mais ñu ngi jëm ci bis bu mag ci diggante sagesse ak rëg-rëg coow li bari na. waaw c'est normal ah ñaari xale yi bëgg egg ci kaw dans la cour des VIP Sa Thiès ay moromam xaw nañu ko raw tuuti ku mel ñoom euh, Ama Baldé ku mel ni ñoom booy ñaa booy Niang di war a bëri ak roi des arènes te Boy Niang moo ko freiné woon Ama Baldé am combat royal ñooñu nekk ay xarit ay ay mbokk ay lutteurs de même génération Sa Thiès nekk doomu mbër. mun a bëre am fit bëre am gaawaay bëre am benn style de bëre bi nga xamante si style offensive mais ki mel ni mu nekk mbër bi nga xamante ne amagul défaite dafay wóolu boppam dafay jàpp ni képp ku muy bëreel moo ko man moo ko dàq bëre moo ko ëpp doole parce que amagul défaite donc il est dans une situation bi nga xamante ni situation confortable la mais mu ngi bëree ki nga xamante ni saa il a un style de combat offensif day dox sa kaw xamul calculer wul adversaire bi lu mu mën calculer wul adversaire lu mu am si doole calculer wul adversaire lu mu am ak lu mu indi rek la xam loolu ça fait partie de ses points forts mais mu ngi bëre ki nga xamante ni bu jàppee sa ngemb euh, bu actionné rek c'est très rare mu essuyer ay action parce que dafa am doole dafa am compétition sur lutte avec frappe bëree na fa ak champion bu nekk ba pare c'est un champion nekk champion di Sénégal donc mbër bu expérimenté la mbër bu mën a bëree la mbër am kattan mbër mu am ginnaaw la donc combat la bi nga xamante ne c'est normal mu am bu polariser toutes les attentions toutes les passions mais mun nañ ci jeex xeex ba d'abord saa kees balaa muy jàppante ak yow parfois da lay descendre coup pour mun la jàppante ak yow rëg gis naa amul combat Reug bu ma depuis bi muy bëree lamb banlieue si journée Serigne Modou Niang bi muy bëree Clinton combat bi def na presque douze minutes euh, sur euh, jour làmb ji Clinton la ñu joxoon victoire moom mu def recours yaakaar naa dafa dem recours je me pa pas ñu ñu ñu casé bi. di ko kii aussi di am ndam ci moom Jimbo pap euh, pap pap pap kii Pape Yekini boobu aussi recours la bi muy bëree Fall Yaraax Euh, euh, tëngëj lañ ko bëree woon Bargny jàk si moo ko tegoon depuis jour journée bi mu bëree Faliara bi mu bëree contre euh, guy gi gis naa nu muy xeexee xaw na jaadu day xeex ci kaw parce que xam na ni xeex bi ci kaw la pour mun a jàppante ak yow si suuf te bu muy xeex coup direct lay doo du doon ay coup laaw donc dafa amélioré ci côté xeex dafa amélioré si côté expérience dafa am compétition donc vraiment bu gaawee kan la gën a bu gaawee ça dépend bu fekkente ni Reug Reug changé na stratégie balaa Sa ñëw ci moom moom mu dox ci kawam bu jàppante ak moom si gaaw a gaaw mun naa mun na ko jig mais normalement ki mu war a jig moom mooy Sa parce que loo c'est son style de combat Reug Reug nag day xaar bu fekkente ni Reug Reug day xaar Sa dafay bëri contre nature parce que dafay da ngay bëri en fonction de sa adversaire lu muy indi donc euh, combat bu neex la war a doon incha allah. kontaan nañ ci yow maa gën a kontaan. ma lambaay ngonal lu rëy la maa jara bàkk ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal